asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ginnaaw bu ñu leen nuyoo jaare leen balu leen àq bal leen àq eh, ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñi yoonu murit suñu borom may ko fan gudd lool waa ànd ak wér yaram noo ngi eh, ziare ak a ñaanal sëriñ siidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke suñ boroom mm, dolli aw fanam ak wéram kàttanal ko ci liggéey bi muy liggéeyal lislaam te defal ko ci ngërëmul Cheikhul Xadim di siyaare mboolem njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp eh, di am mbégte nag di toog ak koo xamante ne bii su ñu leen ko tuddee baa ñu présenté leen ko da ngeen xam ne li sabab jataay bi jaadu na ci moom mu doon taalibeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul doon citoyen bu liggéeyal am réewam waaye nag def nag Euh, jaloore ju rëy ci dëkk bii di Touba kooku nag moo di lieutenant Djibril Ndim yaakaar naa mbokk yi bu ñu tuddee naa Djibril Ndim ñu baree bari miin nañ ko ci Touba ci brigade gendarmerie bi nga xam ne bi ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké defaree ba mu àgg mu bëgg fi ku fi ku ko fi jàppale ci li mu bëgg ci wàllu zahir moom la am xelam daj mu laaj ko indi ko ci jamono yi président Abdou Diouf mu bàyyi ko woon nag ca brigade bu mag bi nga xamante ne bii. ku ne xam ne ne foofa ku fa jaar def nga ci sa carrière stage boo xam ne foo demati man faa nekk mu di conk ca Colobane moom lañ fa yéene dalal rek bu ko bàyyi mu nuyoo ak auditeurs yi télévision yi eh, bu nuyoo ba noppi rek ñu ànd ak moom nag ci laaj yi ak tont yi na Djibril Ndim wala mu wax sax yi Djibril Ndim ndax ñoo bokk daje makkatal mukarrama ca baytullahi al-haram ba defee farataam yi nga xamante ne bi suñu borom moo ko digaloon kon eh, alaaji ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum. Euh, maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp euh, di nuyu njabootu sëñ Touba yi ma xam ni ñoom laa fekk si fii si Touba euh, di ñaan mbokk jullit di di nuyu également mbokk jullit yëpp waaw di am mbégte tey di wax si vraiment kilifa bu mag nga xam ni am naa maanaam chance liggéey si wetam. lu mat euh, ñaari wat ñaari at diggante 1986 ba 88. jërëjëf euh, mu mel ne brigade gendarmerie bi soriwut date boobu nga wax ne moom la ko sëñ Abdou defal muy 1986 jàpp 87 jëm 88 ñu bëggoon rek nga dellusiwaatañ ci lan moo sabab ndax loolu moo fi jëkk ci brigade ñu def ko fi lan moo sababoon sëñ Abdou Lahad def brigade gendarmerie boobu. waaw jaajëf euh, xam nga. maanaam boo déggee ñu naan brigade gendarmerie euh, wàllu sécurité la yaakaar naa ni sëriñ bi demoon na ba xam ni euh, Touba mi ngi euh, màgg mi ngi màgg te lu bare ngi dox wàllu yu bare mi ngi dox mais mbiru sécurité xawoon na manqué ndax amul woon brigade gendarmerie donc amul woon commissariat de police donc. Euh, brigade bi mi ngi nekkoon Mbacké euh, war yor département bi yëpp ak Touba te xamoon na ni temps boobu Touba rek moo ëppoon euh, euh, dëkku Mbacké mhm. waaw ginnaaw bi mai 1986 je pense que amoon na benn événement bu fi amoon ba nga xam ni nit ñi gisoon nañ ñàkk kaaraange yi waaw ndax am na ku fi buggoon def la nga xam ni war ko foon def mu laaloon benn kilifa yaakaar naa ni euh, looloo gënoon tax ñu indi euh, brigade euh, gendarmerie am nag fu mu tolloon ci ay nit waaw mais bi ñu demaatee ba ci kanam mois de juillet amaat événement bu xaw a mel noonu mm-hmm. ñu yokkaat gendarmerie mm-hmm. gendarme ba ñu mat lu mat euh, juróom-benn fukk euh, biñ yokkee biñ leen yokkee ba mat boobu lim léegi ñu yaakaar ni commandement gendarmerie yaakaar ni xëy na léegi war nañ fa man def ab officier euh, si leen man donc la ma affecté donc Touba si wetu brigade spéciale bu Touba comme officier coordonnateur maanaam maa waroon coordonné mhm. si biir département wu Mbacké brigade yi fi nekk loolu moo taxoon ñu indi ab officier nga xam ni xëy na te dina gën a mën a wax wax ak kilifa yi mais également ci wàllu planification liggéey bi xëy na euh, bu fi nekkee dina gën a dox loolu moo taxoon euh, ma ñëw fi maa ngi jóge woon nag euh, compagnie gendarmerie dakaar moom lañuy wooye conk tur yi gën a mag bi gën nit ñi gën a xam foofu officier adjoint la foofu deuxième officier adjoint donc ñu indi ma Euh, Touba pour ma nekk officier coordonnateur euh, brigade du département Mbacké waaw en même temps également nekk euh, adjoint commandant compagnie bu jurubal ak Louga. kon bu ma déggee sa biir i wax brigade bi bi nga fi ñëwee officier nga fi indaale coordinateur waaye booba day mel ni brigade baa ngi Touba waaye yaa coordonné lii département bi wala wala wala wala wala. waaw effectivement maanaam. benn position bu nu créé woon lu bees parce que boobu mooy officier coordonnateur moo njëkk am si gendarmerie. Hmm. waaw Touba nag moo ko waral xam naa ni. brigade spéciale aussi c'est la première fois ñu am brigade spéciale Touba. Hmm. ndax euh, d'abord euh, dëkk bi muy ñëw. mais également lii mu gendarme yi. Hmm. parce que c'est la première fois que ñu am brigade ba nga xam ni am na juróom benn fukki nit waaw. si jamono jooju. maanaam euh, lim bu takku la. Euh, si jamono boobu. boole kook euh, mu ñëw si dëkk ba nga xam ni dëkk bu amoon bu mag la. mais également xalif général des Mourides mi ngi fi ay kilifa yu bari. te doxin bi bi ñu war a dox. ngir liggéey bi maanaam dox. du du du duñ doxale noonu xëy na si yeneen gox. ndax ay kilifa ñoo fi nekk. Eh, am na lan nga xam ne noonu ko war a doxale ba mission bi am. ndax première fois ñu indi gendarmerie biir Touba. xam nga kooku dafa laaj liggéey. waaw dafa laaj waxtaan. dafa laaj explication. dafa laaj sensibilisation. waaw pour que nit ñi accepter loolu. ndax euh, guleet. Euh, gendarmerie am Touba. donc il fallait ñu doxal na xam ni. bu dem luñ gën a dem nit ñi accepté donc euh, gendarme yi. mais en même temps euh, gis seen liggéey jàppale leen ndax foo dem war a liggéey li ëpp solo mooy nit ñi nan xam li ngay def man ci jàpp ndax buñ ci jàppee dina mën a ndam si lañ mën a mën a mën a am. macha allah jërëjëf Lieutenant yaakaar naa ne loolu.

donc euh, te président de la république xam nga moom mooy euh, euh, chef suprême des armées maanaam lu wàllu armée mhm. armée de terre mer ak armée de l'air ak gendarmerie mooy seen kilifa mhm. mais am na ministre des forces armées mais am na aussi chef d'état-major des armées mooy mooy jiite armée de terre air mer mhm. am au commandant de la gendarmerie e directeur de la justice militaire donc ñooñu euh, seen seen mbir euh, président moo koy décidé. waaw bu ko décidé nag euh, ministre des armées force armées mmh. appliqué ko. Mmh, mmh. voilà donc nomination yi am yëpp. si wàll woow donc président moo koy décidé après ministre bi nga xam ne moom la teg moom la teg si forces armées mooy doxali des. donc si am na volet politique. ndax pour ñëw Touba il faut que euh, maanaam kilifa réew mi euh, d'accord si ak euh, xam naa ni xalif général dëgg la waaw te yaakaar naa ni ñëwu gendarmerie xalif moo ko laajoon waaw parce que gisoon na ni yaakaar naa ni dëkk bi dox na si lu bari mais wàllu sécurité amoon na lu manqué loolu moo tax sabab koom sunu sunu suñu ñëw fi kon léegi yow Euh, commandant yi ñëw na Touba. Hmm. sëriñ Abdoul Ahad wax na ak moom. Hmm. xam na li ko tax ñëw ci Touba léegi nag diggante boobu li nga fekkoon Touba ak li la sëriñ Abdoul Ahad doon liggéeyloo ca muy lu bees ci Touba dana am jafe-jafe sa digganteeg population bi waaye day mel ne faw rek ndigalul sëriñ Abdoul Ahad mooy ànd ak li nga jàng ci arme bi nga mën ko si ñu bëggoon a xam diggante boobu nag jafe-jafe yi am foofu. xam nga euh, wax naa euh, si njëlbeen. ni euh, lu bees rek boo indee lu bees fa nga xam ni nit ñi tàmmuñu woon ko gis di dëkk ak gendarme nekk ak gendarme si dëkk ba nga xam ne mus ko am xam nga loolu lu bees la euh, il faut nga am nooy doxale mais li tax euh, coono bi fi mu waroon méttee méttiwul ndax kilifa dëkk bi moo ko laaj moo ni dama bëgg gendarmerie. monsieur Abdoulaye waaw gendarmerie ñëw. te euh, li taxoon mu soxla gendarmerie mooy euh, wàllu sécurité amoon na problème te wax naa ñaari événement yi fi amoon. yooyu day firndeel di problème sécurité amoon na. mais beneen li gëneen leneen li gën a firndeel ni maanaam euh, soxla woon nañ sécurité 1986 biñ fiy ñëw. amoon na lu mat euh, lu weesu junni dossier de recherche xam nga dossier de recherche mooy maanaam nit ñaa xam ni euh, def nañ lu warul def mm-hmm. yoon dal seen kaw wala yoon daragul seen kaw mais mi ngi leen di ut mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu daw loolu bi ñu fiy ñëw amoon na lu ëpp mille dossiers de recherche ay nit junni ña nga xam ni seen dossier yëpp mi ngi woon brigade Mbacké di xaar te ñooy ñoo ngoon Touba. Mm-hmm. waaw. waaw ñoo ngoon lu ëpp junni. lu ëpp junni ay dossier mm-hmm. te façon infraction bu nekk defoon nañ ko. Mm-hmm. waaw loolu déjà yaakaar naa ni wone na ni brigade waroon na ñëw ndax ñooñ yaa ngi doon tase ak ñoom fu nekk. te xamoo seen démb. dëgg la waaw. te eh, xam nga nit moom loo tàmm. Eh, xëy na mën ngaa toog ñaar ñetti fan. mais boo defu ndong la nga tàmm boo toogee tout mën na ñëw nuyu si. dëgg la donc je pense que décision bi sëriñ bi euh, jëloon euh, décision bu am importance la. Mhm. waaw si si si at yooyu. dëgg ndax dëkk bi mi ngi doon rëy si. Mhm. ñu baree ngi doon wàlli si. Mhm. Euh, et te wàllu sécurité amul woon. waaw donc pour dëkk bi continuer màgg il fallait nécessairement ñu am sécurité. amul te je pense que décision bu. bu courageuse la jël. Mhm. ndax ñu bari comprendre ñu ko woon mais yaakaar naa ni mhm. euh, fi ne nii ñu bari ñoo ngi soo a comprendre lu tax sëriñ bi décidé woon commencé indi sécurité. Mhm. parce que dëkk bi mënul woon di continuer si màggaay boobu te sécurité amul. waaw donc euh, maintenant li nga ma wax si maanaam euh, liggéey bi euh, njëlbeet. bu dee nit ñi euh, comprendre ni ngay def euh, man nga am ay jafe-jafe mais jafe-jafe bu njëkk mooy euh, amul ndax sëñ bi d'accord la te mooy kilifa dëkk bi waaw bu joxee ndigal donc ñi nga xam ni ay taalibe la dañ ci d'accord beneen bi mooy ñun suñu wàll war nañ doxalee na nga xam ni saa su ne nit ñi dañuy gis seen bopp si présent su gendarmerie. Ah, mm-hmm. Mm-hmm. waaw maanaam. importance la nga xam ni euh, dañ ko doon dañ daan metti mm-hmm. euh, si wàllu ay infraction euh, fëgg nañ leen guddi wala yàq nañ seen bagage wala am na ay accident te nit ñi loru yooyu yëpp war nga taxaw ba nga xam day wàññeeku. donc ñun en fait loolu mooy communication bi. nit ki chaque jour gis ni man kat sama sécurité. day gën a euh, dolliku si fànn yëpp nag mm-hmm. wàllu tali bi wàllu kër yi wàllu yu bëree bari bari bari bari mm-hmm. wàllu drogue bi wàllu euh, maanaam naan gi mm-hmm. yooyu yëpp euh, bu gendarmerie ñëwee commencé liggéey muy wàññeeku nit ñi commencé gis seen bopp ni ah ñii kat amoon naan ay sikki sàkk mais ah seen nekk baax na si lañ doon liggéey loolu communication la. Mhm. waaw ndax nit ki pour mu jàppale la. Mhm. day fekk euh, yow euh, muy gis gis boppam si li nga li nga nekk. donc euh, beneen bi mooy ginnaaw sëriñ bi bi mu joxe ndigal il faut ñuy waxtaan ñi nga xam ne yeneen kilifa yi ndax quartier yi am na ay kilifa kër yi yu mag yi am na ay kilifa mhm. waaw il faut nga donc seeti leen wax leen lan mooy sa liggéey. ak nan nga gisee sa liggéey mais également laaj leen ñoom lan lan xalaat waaw ak lan mooy seen yite xam nga loolu bu amee mm-hmm. euh, waxtaan woowu am euh, day gën a yombal sa liggéey euh, noonu lan mu def kilifa gu nekk fii dem nañ seet na waxtaan ak yow xam ni sunu ñëw fii pour moom la mm-hmm. ak ay taalibeem ak njabootam mm-hmm. et tamit ñoo ngi koy déglu waaw lu mu ñu wax la nga xam ne mën na jëmale euh, liggéey bi kanam donc dinañ ko jël incha allah euh, doxale doxale noonu. noonu daal euh, def nañ ko te gis nañ bi ñu ko defee ñoom ñëpp dañ si jàpp. waaw te biñ si jàppee tax na ba liggéey bi vraiment yomb. waaw. bi ngay ñëw Touba fekk nga tudd nga ko dorog bi carte gi naan gi tox mi. bari woon fi lool ba daanaka lu ëpp ci mm, agression guddi yi bari woon fi bi nga ñëwee nag eh, daa mel ne loolu li gënoon ñor sëñ Abdou Lahad ci la bokkoon dafa mel ne joué nga ci rôle boo am solo sëñ Abdou Lahad dalaa gunge ci am xelam wala da nga doon dem ci ni nga ko jàngee waaye diggante boobee bëggoon nañoo xam ba automatiquement ni nga ci liggéeyee ba lu ci bari ñu gis ci résultat. xam nga man bi ñu ma euh, maanaam. Euh, général Diop Mamadou Diop. Mm-hmm. nga xam ne mujj na nekk commandant gendarmerie territoriale moo ma indi fi. Mm-hmm. Euh, boobu temps moo nekkoon commandant gendarmerie territoriale. Mm-hmm. ni ma présenté ma sëriñ bi. Euh, bi ma présenté sëriñ bi ni ah kii kat moom lañ fi indi. waaw toog fi fan après dem. Euh, man ma xam ni kon maak sëriñ bi ñoo fi nekk. dëgg waaw. <laughs> waaw te moom laa liggéeyal. ma dem seeti ko. Euh, waxtaan ak moom euh, wax ko man ni ma xalaate liggéey bi man mm-hmm. waaw sa xalaat boobu waaw sama xalaat si parce que quand même euh, officier dafa am loo jàng si mm-hmm. wàllu sécurité mm-hmm. man nga wax ki nga xam ne moom mooy liggéey maanaam mankat li ma jox comme liggéey man nii laa ko bëggoon defe waaw donc loolu àgg naa fi ak sëñ bi ñu toog ma expliqué ko man ñi nga xam ne noonu laa bëgg a liggéey ak fi ma bëgg a yóbbu maanaam sécurité euh, si biir Touba waaw euh, bi ma ko expliqué mu ni ma ànd na ak man lool waaw ginnaaw seen daje bu njëkk waaw ginnaaw bi ma waxee moom li nga xam ni moom la bëgg si dëkk bi waaw maanaam rappelé ma ko mm-hmm. waaw ma ko man loolu man yaakaar naa ni bu ma doxalee nii ak nii ak nii am naa yaakaar ni yooyu yi muy bañ ak li mu bëgg si li mu bañ dootu ko gisati ak li mu bëgg aussi incha allah dina am donc bi ma ko expliquer ba si la ma ni d'accord na ak man waaw léegi euh, man euh, noonu laa euh, liggéey ak moom nga xam ni saa ma soxlaa daf may woo bu dee lu bees man tamit comme dama koy liggéey dama koy rendre compte waaw de temps en temps damay jaar wax ko ni ko ah wall sàngamkat fii laa ci toll def naa fa lii ak lii ak lii mu xam donc chaque jour njëlbeen day day kii maanaam ay presque chaque jour nga jaar ndax yaa ngi soo a ñëw mais bu ñu demee ba nga xam ni mbir yëpp dox mi ngi commencé na nga ko bëggee woon mi ngi doxee noonu ngay commencé di eh, dem par semaine ak yooyu quoi nga xam ni euh, doo ko sonal ndax euh, kilifa la euh, du am temps mais daal noonu la defee chaque jour dama ko doon seeti. waaw lu ma def rek wax ko. waaw mu xam ni sa rapport da nga koy def ci moom voilà nga xam ni dina xam li ñu waxoon kat ñoo ngi koy doxal. waaw te aussi du am intermédiaire. ensuite après une semaine. waaw donc wàllu yooyu yëpp nag saa bu ñëwee wax ak moom. wax li ma def mu d'accord ak man encouragé ma ni ma euh, man nga continuer si wàll woowu waaw Djibril euh, Ndim lieutenant Ndim jóge nag compagnie conk ñëw Touba ñu indi ko fi muy liggéey sa première rencontre ak sëñ Abdou Lahad nga gis ku nga xam ne yaa ngi soog a toog ak kilifa gu mel nii ba nga ko gisee kan nga gis man ki ku ma gis mooy bon kilifa quand même euh, bu xam àddina waaw ndax euh, da lay jox say responsabilité waaw bu baax uh-huh. waaw dalay jox say responsabilité uh-huh. maanaam euh, bu xamee ni yow lii nga wàll woo yëpp sa wàccuwaay dala ko jox macha waaw ba noppi di la xool xam pour ngir xam ndax yow liñ la indee fii uh-huh. di nga ko doxal walla déet <laughs> waaw tant yaa ngi koy doxal du mës a wax ak sa kilifa. waaw du la jàll. Ah. waaw loolu gis naa ko. daa daa wala jéggi wax naa nga. Mm-hmm. déedéet waaw boo góorgóorloo. Mm-hmm. ba nga xam ne li la war yaa ngi koy def. Mm-hmm. du wax ak sa kilifa yow lay waxal. allahu waaw kon xam na àddina. Euh, respecté na nit parce que loolu mooy respecté nit ki. dëgg la waaw yow kay. yaay manqué. ah la war defoo ko. mais moom li ko war mooy euh, mi ngi koy def mooy yaa yow lañ fi indi. kon yow lay waxal. waaw yaay góor nag. ba mate li tax ñu indi la. waaw ci côté boobu ndax jamono jooju damaa xamul ban jamono la mais indi nañ fi ma gendarmerie ba mu yàgg ñu indi fi waa LCM Mbao xaaj yi. waaw ñëw fi. def fi opération bu doy waa ndax boobu mën nga ñu ci dellusiwaatal. xam nga euh, gendarmerie il faut ñu xam ni euh, maanaam brigade dafa tuuti. amul jëmtukaay yëpp. dëgg waaw. Mm-hmm. donc brigade bu soxlaa doole si genn wet. Mm-hmm. day woo renfort. Mm-hmm. donc LG yi bu ñëwee mi ngi mel ni màggal jot. mais bu màggal jotee du brigade moo koy def. déedéet màggal gi day xam ni ay nit day ñëw. mu ni ah commandement bi man. yónnee lu mu na ay nit ndax màggal dina am. ëpp na ma waaw c' est la même chose pour affaire LGI wala xaj yi. Mm-hmm. LGI doole euh, maanaam pour ay rassemblement la ak pour maintien de mais xaj yi euh, pour euh, maanaam seet lu wàllu ay drogue yooyu. Mm-hmm. wala explosif. Mm-hmm. kon bu ñu buggee am doole si wàllu drogue. dañuy laaj xaj yi ñëw. ndax xaj yi foo def drogue. muy oto wala nga yor ko wala mu si kër bu ñëwee day ñëw ba xam ni la fii la drogue bi nekk mm-hmm. waaw looloo tax donc brigade yi ni woo jël laaj renfort ngir euh, maanaam euh, xaajoo yu ñëw pour ñu xool affaire drogue bi mm-hmm. Touba mm-hmm. loolu la woon surtout ah mais mais du loo sëñ Ablaye damaa di woon brigade bi moo dem ba xam ne ja mënut ñàkk mu laaj ko non xam nga euh, luy ñëw fii rek day fekk kilifa gi d'accord si. waaw parce que yow doo doo ñëw rek ni bon damay indi euh, lii wala lee. déedéet wax ak moom. Mhm. nee naa la compte rendu euh, sëñ bi dangay wax ak moom saa su ne. Mhm. waaw ni ko mbir yi fii la toll. Mhm. waaw que lii nga bëgg a def. lii boo ko bëggee def jëmtukaay yi nga war am. jëmtukaay yi amoo ko. da nga koy jéggaani. waaw. xam nga kooku yëg na ko. dëgg la waaw. donc boo laajee renfort yi xam na ni moom. Euh, lii dina fi ñëw. dëgg la ngir lii. Mhm. ndax lii am na fi si bi. Mhm. Mhm. waaw donc euh, noonu daal laal la ko mën a. Euh, macha allah. di expliquer. ndax sëñ Abdou ci sa biirub liggéey. Hmm. daa ngeen dem ba mu yàgg jafe am ngeen jàpp lu mag wala lu rëy ñëw def intervention nga xam ne day mel ne. danaa ah tey ne sëñ bi moom jóom loo ñun loo nañu wala nangam ak nangam ndax li waru ci woon a def intervention ndax loolu sëñ Abdoulaye daana ko def non sëñ Abdoulaye li ma ko mën a kilifa la dëgg dëgg dëgg mooy njiit oh. maanaam exemple manager oh. Oh. xam nga euh, waroon nañ di ko di ko di ko jàngal xale yi si école moom sëñ Abdoulaye xam nga wax naa la nii euh, hiérarchie mm-hmm. daf koy respecté waaw boo fi nekkee yow lay waxal du wax ak sa kilifa tànk yaa ngi mat li nga doon mhm. waaw benn mhm. xam nga kooku mhm. lu am solo la yenn saa yi day xaw a néew dañuy gis ña xam ne dañuy bëgg wax ak kilifa gi waaw bàyyi jàll agent yi waaw moom du wax ak sa kilifa tànk lii la war yaa ngi koy def waaw benn benn boo leen ba mu wax ni lii bëgg ko du intervenir waaw musul intervenir waaw pour man musul intervenir musuma wax ni ma bàyyi di wala leneen waaw noppi na ci te ginnaaw boo leen bu wax joxee ndigal gi. Mm-hmm. xamatul euh, kii njaboot la wala du njaboot. waaw ah. ñëpp ci bokk yem waaw ñëpp a ci bokk yem. Mm-hmm. bu la boo defee loo warul def euh, yoon day dal sa kaw te du intervenir. c'est waaw kooku moom vraiment. Mm-hmm. nekk naa fi ñaari at ak lu topp. musul intervenir ku nekk euh, yoon dal na sa kaw. si li mu tare mais du intervenir au contraire nit ñi am nañ sax ña nga xam ni dañuy jéem a intervenir si yow mhm. woola euh, man amoon naa habitude boo ma woowee dama naan ah man kat euh, du man maa joxe ndigal bi mhm. man sama liggéey mooy bu ma gisee que lii kat dañ koo tere la ma war ma def ko boo buggee da moom ñu bàyyi damal wax ak ki ko tere. nga xam ne yow kooku danga nga koy delluwaat seen blaat. waaw mais euh, ñu bari dala naan ah euh, comme noonu la daal léegi bàyyi naa mais bu ko sëriñ bi yëg. ah <laughs> macha allah ma ne ko ah sëriñ bi daal bu ko yëgee. Mhm. yow la waaw. allah nga xam ne kooku sax duutu ñeme ne. waaw sëñ blaat yëgoon na ñëw na def intervention. pour xam pour pour pour won rek mhm. autorité bi mu amoon. Mhm. waaw. waaw autorité bi mu amoon. waaw. jërëjëf jërëjëf euh, lieutenant Ndim léegi maa ngi laaj ba xam yow lan moo la gën a marqué ci Sëñ Abdou Lahad moom nga liggéeyal pendant ñaari at di ko soog a gis lan moo la gën a marqué ci Sëñ xam nga maa ngi la doon wax ni euh, Sëñ Abdou Lahad exemple la si wet yu bari waaw bon wàll kilifa diine gi moom du ma si dugg ndax sama xam-xam euh, yaatu si wàll woow mm-hmm. mais ni ma la mun a waxee mooy bu amoon citoyen waaw ah modèle citoyen euh, sëñ Abdoulaye modèle citoyen la ndax réew mi yoon wu da si aw lu ko wàcc réew te du la wax nga wàcc te du jàppale ku ko wàcc waaw nga nekk nag ci njabootam taal yu walla keneen mm-hmm. waaw benn beneen bi mooy euh, si wàllu dëgg euh, musul soppeeku ci wàllu woowu saa su problème amee ñu seetsi ko ba mu laaj toujours nag day laaj waaw bu laajee bañ jox ko information yi yow ki am dëgg da lay jox si dëgg waaw boo nekkul njabootam ak koo mënti nekk même boo nekk ci beneen diine du la boo amee dëgg da jox sa dëgg. waaw ndax toog naa man ay yoon ya xam ni euh, problème day am diggante taalibi yi ak ña nga xam ne duñ taalibi euh, mu jox ñooñu dëgg. bàyyi taalibi waaw ko expliqué. moom mm-hmm. ak lii la. Mm-hmm. mu jox ñooñu. ñooñu fa dëgg aw rek waaw moom daal. Mm-hmm. mi ngi si côté dëgg. waaw te amul kii taalibi la. kii sama doom la kii déedéet kii am dëgg da la koy jox de waaw mais aussi day toujours day informé wu waaw ah. waaw toujours day informé bu dara amee ñu ñëw wax ko day woote boo ñëwee mun la ah lii ak lii ak seetal ma loolu yow boo amul information bi nga laaj ban région la wala dakaar pour information ñu ko ah man kat ci mbir mi lii ak lii lan ma wax loo xam ne même génn na région bi génn na département bi. te tuuse yoon yi wala mu tuuse njaboot gi. waaw dalay lay woo defloo ci enquête. waaw parce que euh, ñëpp a ñëw si moom. dañuy gis ku jógee Dakar xëyee Dakar ñëw kalaame si wala lii ak lee. Mm-hmm. donc moom bala mu si wax dara day laaj information. kon ñun tamit yenn saa ñu woo suñu mbokk yi. Mm-hmm. Dakar wala feneen ñu ko ah ñun kat am na tel cas bu ñu posé. Mm-hmm. waaw lan moo xew kooku wax ñu li xew. mu ñëw wax ko sëriñ bi waaw mu woo ki nga xam ni moo ko set si woon ni ko lii ak lii xew na kat yow kat amu raison demel nga régler loolu kooku man def na ko sama kanam ba taay waaw waaw ne moom bu ca dëgg nekkut moom da cee dégagé waaw dala naan demel nga rek ji waaw waaw mm-hmm. ak comment si doon nag nga mm-hmm. nekk taalibe wala nga bañ nekk taalibe mm-hmm. waaw donc du jàppale ku si dëgg macha allah voilà du làq. ku nekku si dëgg. waaw loolu moom gis naa ko. xelum àddunam sëñ Abdou Lahad xel mi ko yàlla jox ci wàllu àdduna doxaliinu àdduna ak xel mi nga xam ne am na ko ci wàllu xam nit yow noonu ko mën a expliquer xam nga nee naa la euh, njiit la manager la xam nga njiit da ngay am ay jumtukaay yu bari da euh, am la xam ni foofu nga bëgg yóbbu li ngay jiite. information bu nekk dina ñëw di la ko wax. waaw waaw ku nekk dina jóge fu nekk. waaw euh, donc expérience bi ma am tax na ba nga xam ni euh, du décider dara san laaj ñi mu war a laaj te buy laaj day laaj ki nga xam ni moo nekk si wàll woowu. Mm-hmm. du lu bokk waaw bu dee sécurité daf may woo. bu dee geneen wàll day woo ñi nga xam ni administration bi ñooñu loolu mooy seen liggéey nga xam ni day am information bu baax bu wóor mm-hmm. mu soog a nag jël décision ah, ah. waaw kooku déjà kooku euh, loolu sensu responsabilité dëgg la waaw mm-hmm. beneen bi mooy li naan impartialité maanaam du jeng fi mu taxaw mi ngi fay taxaw euh, donc euh, bu dee am nga dëgg yow sa dëgg boobu da la koy jox mais mm. boo nekkul si njabootam waaw même da nga am problème ak njabootam da jox góob dëgg. loolu aussi vraiment nekk naa fi li ma fi nekk yëpp euh, def na loolu. musul intervenir ci mbir. waaw musul intervenir ci te am na nga xam ni ay coppite yu bari moo ko soppi wax naa ne mbiru citoyen euh, yoon ki nga xam ni day doxal yoonu réew sa réew. ah. Mm-hmm. di euh, nii ñu koy def. Mm-hmm. xam nga kooku citoyen nga. citoyen pire waaw ah, bu ñu naan citoyen loolu mooy sa réew lépp lu ñuy doxal si réew mi yaa ngi si. Mhm. dama lay jox benn exemple rek mooy mbiru assurance. Touba. Mhm. sëñ Abdoulaye moo tax assurance am fi. Ah. maanaam développement assurance. Mhm. Touba euh, assurance lu néewoon la fii. waaw waaw. 1986. benn assurance bu ndaw moo amoon Mbàkke. yenn oto petit transport yi ñooy mais oto dëkk bi yëpp ñu bari ak gox yi mhm. kenn amul assurance kenn amul assurance mhm. waaw donc amoon ay accident yu daan am am ñu si lori problème ndàmpaay am mhm. euh, ma dem seeti ko ñu ko ah lii de am na fi am na ñu bari ñuy lori si accident mais buñ demee ba si biir maanaam du am oto yi duñ am assurance mu ne ah ma ne ko mu ne man de Abdou Lahad ku ma gaañ dinaa la dàmp ku ma gaañ dinaa la dàmp waaw mm-hmm. Mm-hmm. demal nga def sa liggéey looloo tax assurance généralisé wu <laughs> Touba ngay gis nii kooku Cheikh Abdou Lahad Mbacké la <laughs> donc si leen commencé ñun tamit mm-hmm. euh, loolu bi ñu koy tàmbali ñëw ñu rek daal si kaw nit ñi. Mm-hmm. waaw ndànk ndànk. lan commencé boo ñëwee ñu jël sa permis mm-hmm. ah nii la ah saa demal uti assurance nga dem dagg assurance. Mm-hmm. ah. ñëw ñu jox nit ñi commencé di tàmm assurance looloo tax assurance am. macha allah donc aujourd'hui boo xoolee biir Touba. ñaata assurance ñoo fa am. kenn xamul nu mu toll kooku nan sant suñu ablaat. macha allah waaw je maa ngi maa ngi rappelé wu sax. loolu bi ñu ko tàmbalee. ki yoroon assurance bi fii daf ma woo ni ma mais euh, lu xew ko ndax nit ñi danoo bari trop ñu assurance mm-hmm. ah. maanaam yëg na ne rek waaw nit ñi danoo bari trop waaw mm-hmm. actuellement mm-hmm. waaw song assurance mais fekk liggéey boobu ñu tàmbali woon kilifa yi ñëpp di wut seen assurance parce que moo nekkoon njariñu dëgg la maanaam réew mi waaw njariñu askan wi parce que ku looru si mbiru accident normalement war nga am Euh, loola dàmp. dëgg la waaw. donc loolu sëñ ablaat moo ko fi. macha allah jërëjëf xam naa li ñuy des ci waxtu bari. Hmm. waaye dama bëggoon a xam ndax euh, ndiim bi muy ñëw fekkoon na mu doon taalibi sëñ Abdou Lahad wala lan moo jaxase ndiim ak sëñ Abdou Lahad ba tey sax wila wila këri ndiim yëpp kër sëñ Abdou Lahad lay doon. en fait euh, sëñ Abdou Lahad c'est vrai que bi ma ñëwee bi may ñëw Touba donc nekk woon Murit. mais man personnellement dama gis si dama gis nii ki ma nekkal guide la maanaam euh, njiit la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. si wàllu euh, baatin ak si wàllu àddina. Mm-hmm. waaw exemple la. parce que booy ut njiit da nga fa nekk exemple. dëgg la nag te man ki ma nekkal pendant deux ans exemple. dëgg-dëgg vraiment. Ah. waaw donc looloo tax bi ma paree man bi ma paree fii. ba ñu affecté ma. si laa soog a jébal si moom. waaw mu nekk sama sëriñ. kon da dem ba dellusiwaat soo ko jox sa bopp jëblu ci non non bi ma paree ban affecté ma. ba nga xam ni war naa dem. ah. bi ma koy tàggu. si laa jëblu si moom. waaw bis boobu lan lan la def maam loo yëg ci Sëñ Abdou ak yow bis boobu lan la la def. non kontaan naa moom aussi euh, euh, kontaan na trop euh, parce que sama relation ak moom. ay relation ya dara ñu bari jaaxle na leen mhm. waaw parce que daf ma jëloon comme doomam euh, vraiment jàppale ma si liggéey bi parce que moo ko yombal mhm. boole ma kilifa yëpp mhm. euh, ba nga xam ni yàlla def ba am ñu am ndam si liggéey bi waaw délinquance bi wàññeeku bu baax a baax a baax euh, nit ñi li ñu doon jàmbat je pense que presque ki amatul. mais moom li mu bëggoon aussi si dëkk bi. muy wàllu drogue wàllu euh, alcool ak yu bari ak foy yi football yi en tout cas euh, caaxaan yi. yu bari aussi amatul si dëkk bi. ñi fi daan ñëw aussi nga xam ne dañuy naan ay sëriñ lañ teg ñoo ngi si yeneen. daw dëkk bi. am na nga xam ni euh, maanaam ñoom ñoo dawal seen bopp. ndax pression bi ñu amoon. yooyu yëpp. Euh, moom moo taxoon euh, mu am ndax moo nekkoon ci ginnaaw. Mhm. te delluwul ginnaaw benn waaw donc bi ma demee donc bay waaj a dem euh, kontaan noonu xam naa ni. Mhm. ñaanal na ma aussi. Mhm. te dama garder relation yi ak moom. mais ma xamal ni aussi man déjà bi ma fi nekkee avant may may déjà may may pare. am naa fi soxna. waaw dégg la waaw. Ah? Mhm. ah kon xam nga déjà. te mhm. li ko waroon yëpp moom def na ko. dégg la waaw donc du ma taalibe mais nekku moon taalib mais euh, am naa fi soxna. Mhm. donc euh, muy am relation ak donc ak waa parce que foo am soxna moom. xam nga déjà mënoo ko fàtte. dégg la waaw moo tax vraiment kontaan naa euh, choisir ko comme comme maanaam kilifa. ndax mat na ko. si wàllu yëpp. mais aussi gisoon naa ni. amoon na euh, peut-être kontaanoon na. Mhm. vraiment le fait que ma toog ak moom. ah ndax dama daan continuer même bi mu affecte di ñëw di ko seet tout temps relation yi continuer ba bi mu fi jógee. macha allah voilà jërëjëf kon yan kàddu ngay tàggatoo. non ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, peut-être occasion bi euh, am ba ñuy wax ci sëñ Abdou Lahat mhm. mënuñu ko mënuñu wax lépp. Mhm. danoo Euh, peut-être joxe tuuti si liñ xam si sëñ Abdou Lahad mm-hmm. mais kontaan si wax si moom mm-hmm. ndax exemple ba nga xam ni euh, yaakaar naa ni euh, ñu bari ñoo ngi soog xam kan mooy sëñ Abdou Lahad waaw royukaay la ci wàll yëpp mm-hmm. waaw nit ka nga xam ni la waroon na di wax ay mbiram xale yi waaw ñu xam à peu nit ki nan lay taxawee. waaw lan mooy citoyen. lan mooy jàppale sa réew. lan mooy bëgg sa réew. lan mooy aussi góorgóorlu euh, di doxal dëgg. waaw fi nga dëkk. fi nga sa kër. ak mbedd mi ak fépp. ndax euh, loolu mooy stabilité réew. te sëñ Abdoulaye si la nekkoon. incha allah waaw je pense que ñoo ngi ñaan suñu borom. mi nga xam ni dara tëwul. mu vraiment yóbbu ko si àjjana yi gën a kawe. waaw donc euh, teg loxo njabootam ak njaboot suñ Tuuba ak bépp jullit. macha allah waaw si barke yoon tëdd bi. jërëjëf leet na Ndim 1986. waaye en même temps nag jërëjëf le euh, colonel Ndim 2022 euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne liggéeyoon nañ ko ànd ko ak ci jamono jooju. Eh, may wax rek na toujours eh, xale yi buñ ñu demee ba xàmmeetuñ cigarette xàmmeetuñ sàngara xamuñu yu mel noonu grace au Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye pëstéefam ak taxawaayam bi mu ànde woon Cheikh Abdoul Ahad moo ko may loolu kon war nañ laa sant bu baax ñaanal la sun borom mu dolli saw fan dolli sa sa sa daraja sàmmal la sa njaboot te te teral la ci darajey lislaam yi nga xamante ne bii waxoon naa ko ci njalbeen gi bu garaatub euh, colonel bi dolli ko ci garaatub lieutenant bi itam euh, lislaam dolli na la garaat ci garaatub alhaaji dem makkatal mukarama kon loolu lépp na ñi ngi ñaan suñu borom fay la ko fay la sab liggéey euh, seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo ci micro bi alaaji Fallou Syll moo nekkoon ci wàllu machine bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.